daan mu ñeel législative yu 2022 yi mhm. ñu war ko amal nit ki fanweeri fan ak benn ci weeru juillet bi ñu nekk donc ñu gis ni campagne bi door na mhm. euh, laataa ñu ñëw nag yow ci sa investiture dama bëgg déjà am sa gis-gis par rapport ak violence électorale bi ñu nemmeeku mais laataa ñuy ñëw sax ci violence électorale ba tey lu ñeel législative yi mhm. gis nga barki dem acte bi nga xamante ni Sonko posé na ko rejeté li nga xamante ni moo di micro RTS euh, ni du ci wax mu ñu bëri nag euh, ñaawlu ko ñenn ñi tamit rafetlu ko wax ne nañu RTS dafa wane par parloo a équilibré Euh, damay wax ak boroom xam-xam yi ba tey Sonko buy def ñi am xam-xam dañuy understand lan la sonk di def xam Sonko loolu mu def lan la miin hmm. réew mi na ma jàll na senegal Sénégal puusal leen ma ko nale man waxuma waxi senegal man dama bëgg ñëw nangu réew mi torturer leen <laughs> def leen lu metti ba pare jàll. mais lu tax nga gisee ko noonu. parce que RTS yeneen micro ñu ngi woon bu kese la kii. waaw te yeneen micro yëpp ci réew mi lañ nekk. déedéet RTS mooy Ndakaaru RTS sa alal la sama alal la su fekkee ni nag danga nga nekk opposition da ngay gis ni RTS dafay far te RTS sunu xaalis la ñun ñoo ko moom yëfu réew mi la te Sonko dafa ñàkk kersa dafa am yoo xam ni boo bëggam réew dafa am yoo xam ni doo ko def te Sonko dama defe ni amuluy conseil. te amul amuli conseil sax nañ ne koy conseil nee nañu du du leen déglu su génnee lu ko neex lay def Sonko dafa tiit. Sonko mi ma gis dafa tiit dafa tiit. Sonko mi di rassembler di di di di dajale mbooloo mu takk bu nga xamante ni barki démb Ndiaye ba mu teewee. sax sax une heure du matin ni di ko xaar ngeen dafa am yoo xam ni. xam nga bayre ñëpp topp la est-ce que du yéen yéen a tiit ba benn bopp yaakaar dafa am bayre boo xam ni ñépp dañ lay topp mais bu dëgg jotee. dañuy doxal dëgg. non loolu du bay loolu mayu yàlla la parce que yéen bu doon bayre boobu yàlla Sonko amul mayu yàlla Sonko mais bu doon mais xaaral mais bu fekkoon bayre boobu bayre bu ñu joxale waa benn boo ko yaakaar di ngeen ko uti ji parce que gis nañu barki dem même Alioune Ndoye sax mu demee am na gis naa ci vidéo yi am fu mu romb di wax kenn déglu ko sax xale yaa ngi euh, il faut nga xamadi wala nga réew wala nga mën wax yu ñaaw ci jamono yuñ toll de amuloon de léegi nii il faut nga violent pour ñu ñu bëgg kan moo gën a yaru Macky Sall ci réew mi ak lañ ko wax lépp da nga mës a gis mu sànni micro Walfadjri. loolu waree wareefam la parce que moom mooy président dafa war a joxe bon exemple mais kii dañ ko kii kii dafa yàpp pàlla xam dañ ko woowee président mu defe ni moom la. ah du président. mukk ci àddina te du ko gaaw a doon. lu tax neew ma du ko doon du yàlla du ma yàlla. Mm. mais du ko gaaw a doon ndax dëkk bi dafa am ay réalité donc mi ma gisee mën na nekk. xam nga lu ma bëgg man yéen yéen animateurs yeeg journalistes toujours lu may wax mooy da ngeen bokk ci réew mi Sonko gënu leen a yey ci réew mi Sonko gënu leen a xam liy dox ci réew mi Sonko ba mu ñëwee gis ngeen li am ci réew mi fii la ñu saaga mam Abdou Aziz ci ci ci ci ci politique Sonko ci la ñu saaga maam Mor Anta Sali ma dégg ko ci la ñu saaga ci la ñu saaga Xaadimu Rasul saaga Alaaji Malik saaga Limaamu Laay est-ce que yéen di ngeen toog ba di poser question yooyu man loolu moo may naqari Coura Macky li nga wax li ko wax déedéet lu tax ñu saaga sëriñ Touba fii loolu da ngeen koy war di laajte ñu koy wax di ko leeral pour ñu xam li tax réew mi yàqu bu njëkk ba su ma génnoon tey wax fii dara wala sama sët bii génn saaga yow boo ko rombee da nga koy dóor ni ko saaga baaxul mu ñëw ma ne ko lu tax looy jooy dañ maa dóor lu tax dafa saaga dama koy dollil ne ko saaga baaxul. mais Coura Mbacké est-ce que du tey jii situation boobu ngay wax nii. Mhm. est-ce que parce que da nga wax sànq lu am solo sa biir wax da nga ni euh, réew mi euh, boo yaroo kenn du la déglu. déedéet euh, waaw faut il faut nga violent il faut nga am yenn termes yi nga xam moom nga utiliser pour nit ñi ci Sonko la commencé waaw mais mais Sonko bu nga ko commencé te nag yow ku mel ni yow tamit da nga ko ci fekk si parce que gis nañ yow Coura Mbacké da ngay def ay live di ci wax lu la saf waaw di waa di yàq Sonko lu ko saf di yàq ay Fouta Tampi lu leen saf di wax di wax ay Gora Mbodj di wax lu la neex xam nga lu tax waaw lu tax loolu dañuy saaga est-ce que moom moo engendré tey koy nemmeeku ci ci élection bi sax ma dul dégg man damay kontaan ngeen may laaj ci loolu dama ni Sénégal yëpp nañu ma déglu ma waxaat ni jàkkarlook ñoom. waaw jàkkaarloo fii mooy Sénégal suñu saaga Macky Sall dinaa génn wax ki ko saaga mi njombikam te doo leen mësa dégg ma saaga ko ndey te dañuy saaga yaayam suñu waxee kilifa diine yi lu ñaaw.

ma ni naam nga ni ma sunu koñ bii day damaa bëgg nga yeggeel ma Macky Sall ne ko koñ bii amul courant koñ bii amul ndox ne ko defar na fii baaxul wala leader bi mu fi teg li mu def fii dara baaxu ci dama la koy nangul sa président la am nga droit wax Macky Sall ne ko fii baaxul mais amoo droit saaga ko ndey man loolu laay xeex ba ma njëkkee man duma man dama xam politique man artiste la mais Macky Sall man maa yor cumbukaay bi man maa nekk maa wàcc baagam li américain di wax maa wàcc sa baag mooy maa yor sa cumbukaay ku mu neex waxal Macky Sall loola neex ci réew mi boo ko saagaa nday ma génn ndayam yoonam newu ci danga ma mës a dégg ma saaga ndey Sonko waa Pastef laay waxal musuma saaga Sonko ndey man sonk lay rukk Sonko laay sifaay mais saagoo ma Sonko nday te du ma saaga ndeyam parce que yaayam jur ko rek la am ci moom. mais est-ce que tamit jàppoon ni waa RTS donte ni man sama yaay naataango lañu euh, et que ñoom ñoo jiitu ci ci ci ci mbir mi ñoom ñoo wan yoon bi tamit ñu bëri en tant que la chaîne mère ni euh, cest à euh, boo nee yow yaay ndey da nga war a boole uuf ñëpp et que tey ji tele bi opposant yi tamit dañ ci war a gis bopp loolu moom dëgg la bu nga xamante ne war nga ko nangu Sonko tamit. xam nga lu ma leen di yëgal. waaw yéen journaliste yi yéen ñi suñu laalee seen benn nit yéen yéen a war a jóg xeex ko ba dootuñu ko def. non ñun jóg nañ parce que ñu koy ñaawlu Sonko dina leen ko def mbaa mu defaat ko keneen keroog ba ñu ne nañ tëj Walfadjri dafa am ñu jóg ne nañ lakk TFM mën nañ leen ko def yéen. loolu ay chaîne privée man si chaîne nationale bi laa wax dama ni en tant que koo xamante ni yow yaay ndey ji seex. dama ne du ndey ju seex est-ce que tey jii waroo tëddee yéen yéen laa wax du ma jóge fi ma taxaw de yéen. yéen da ngeen war a taxaw gis nga affaire bi guerre cerveau la. mais la moo tax yow bëggoo àttu ci li ma la ci question bu gàtt boobu. parce que RTS ndax nangu loolu sa leader bi di Macky Sall sax laataa muy nekk. Euh, président loolu euh, moom si boo xam ne daawoon na ko kaas ci waa RTS ba mu nekkee président peut-être la dem far ak ñoom. mais Abdoulaye Wade ba mu nekkee opposant da ko daam kaasal waa RTS. fi ma taxaw du ma fi jóge de yéen ñii bu Papa nga Njaay bi Sonko dina leen jël moom du ko joxe de da leen di sànni parce que. papa ngay day liggéey ci Youssou. non ñun duñu ko ñuy sànni suñu leader sax ñàkk suñu. barki yonent bi suñu kilifa sax ñàkk fayda ba leen ëpp doole. RTS moo leen doole. waaye ñun ñoo xew loolu la yàlla dogal. RTS dafa yàgg xew. artiste xam nga RTS lan la. mooy lëg daawur. kuy falu ci réew mi. ak lu la ñëpp teg di nga bëgg RTS teg la man ci dëgg bi nga xamante ni man dëgg bi laay wax nii xaaral rek man ci dëgg bi nga xam mu ngay wane foofu mhm. mhm. tey ji c'est-à-dire su fekkee àndoo ak nit a xool rek li nga xamante ni moom ngeen moom ngeen moom moom loolu ngeen bañ a bokk dafa musul nekk ci dëgg ba ñu ma Ousmane Sonko en tant que human being nit fu ma dem wax ko man duma bañ doomu aadama jikko Ousmane neexuma Ousmane ci lépp loolu mu def rek dafa kon daal ci kaa bi daal RTS nga faral ci tënk. RTS dafa nekk mais lan la RTS def Ousmane Sonko nee naa la dina ko defaat keneen. d'accord yéen bu journaliste yépp bu ñu takkuwul. ni ko Ousmane lii dootu fi am dana ko def keneen ak keneen ndax day raay moom. d'accord day wokk. d'accord su wokkee mu neex. Mhm. mu gàjj. d'accord mais mais mais mais mais Coura ba tey ci violence yi. Mhm. Euh, ginnaaw euh, boobule acte euh, ñu ñëw ci violence électorale yi. yëg nga temps yi coow yi am yëpp ci caravane yi fële ca Thiès gis nga barki démb maire ba di docteur Babacar Diop dañoo daal di kayase li nga xamante ni moo di otoom ñoom seen biir ñoom ñoo ko def ñoom waa yeewi seen biir ci boppam mu joxoon ci nag baaraamu tuuma Euh, garde rapproché bu Ousmane Sonko ba déposé ay ay ab plaintam Euh, ba pare ñu ñaawlu tamit ni depuis lors benn leader ci waaye Yewwi woowu ko téléphone sax pour masawu ko te ñoom ñu bokk ba tey euh, ci bileb coalition lu ni mel également ñu nemmeekuwaat ko fa tamit foofee ca Bounkiling ca Sédhiou mhm. euh, tey tamit ñu xamante tamit foofee ca Matam ci diggante wayu ndaw Farba Ngom yu ni mhm. ay yooyu yooyu la violence amaan na fa tey ji jàpp nga ni dem élection ku ne war a fëyte fa nga far ku ne war a soutenir sa candidat war na jar ay dóorante ka màttante ka gajjante waaw loolu rafet la ci Sénégal rafetul dama koy ñaawlu rafetul tey rafetul ëllëg ndax dafa doy deret yi di tuuru nit ñi di dee bokkul ci sunu ngëm-ngëm bokkul ci sunu politique euh, xam naa ni fekkewoo jamonoy Ablaye Wade bu mu commencé mais dafa amoon violence ci doon am genre yu mel nii mais sunu maam Ablaye Wade bu ñu musaan élection ba pare dafay may réew mi jàmm mu dem ñu nekkaat ci leneen mais li xew nii dafa jóge ci Ousmane Sonko te dama bëgg sénégalais nangu ko. aji na yow nag gis nga nag gis nga nag kuréel nag li nga xam ne yow ah, mu nga ah, def daal di déedéet nag ah, xaaral xaaral nag gis nga kaa bi nag a def saa su ne rek buñ nee ñoo xam njaay da nga jël ko rek daal di koy batale ki nga xam Ousmane Sonko yi yéen dans tout euh, li xew mars passé da dégg ñu koy bàkkoo Ousmane Sonko leader bi ci boppam yéen xam ngeen ma yéen APR ak Benno Bokk Yaakaar su ma yëngalee dangeen di daw dugg ci ron lal yi ba ci président Macky Sall maa ko sauvé ñëpp di ko dégg dafa am nag nit ñoo xam ni boo leen di puus ñu naan déedéet nga leen di puus ñu naan noo nga leen di puus ñuy daw ndax bëgg jàmm bu yàggee bu nu jëngoo rek àddina tas. na nga jàpp ne waa Benno dañoo fayu ni. dañu commencé di jëngu. parce que Ousmane da leen di da leen di fippuloo ay moroomu góoram mu naan leen su ma yëngalee da ngeen di daw. kon daal yow kuréel tiir d'arme yi am fa ca ca ca. mais ñoo njëkk a tiiree xaaral rek xam ne nit mënoon na ca ñàkk bakkanam da nga ko questionné da nga ko ne est-ce que tiitaange war a judd ci réew. non non non non dama bëgg ñuy wax dëgg violence bi bëgguma ko bëgguma kenn bëgguma kenn dërëtam sotteeku yow yow sànq ba tey propos yi nga tënne ni non non no non li may wax nii xam nga man dama ñeme man ragaluma ragaluma man dama am fit man Ousmane Cissokho mooy sama maam da daan ànd ak ba jaxu Ba ak Fodé Kaba man dama donnu dama donnu fit Sonko moo tax waa APR yeeg Benno yi jéngu dafa ni leen su ma yëngalee da ngeen di daw ma ne ko man du ma yëngalee damay buddi man du ma rek bàyyi man lu ma yëngal dama koy yëkkati. mais kon li nit ñi di wax naan instant bi yéen au pouvoir da ngeen c'est-à-dire da ah, ngeen ah dañu jéngu rôle yi instant ko inversé mhm. yéen yéen a mujjee nekk opposant ñee mujjee nekk li nga xamante di président si parce que tey ñu ngi ci suñu parce que yéen euh, ñee bu ñu jiitoo léegi ngeen topp seen ginnaaw parce que yaa ngi koy wax léegi ñoo jiitu xaaral xaaral da nemmee ko benn pat pataara ñoom ñu